ñu ngi gërëm euh, euh, député yëpp voté nañ suñu budget ci majorité bu tàkku ñu ngi leen di gërëm di leen sant léegi nag euh, xam nga ne wax nañ ci lu bëri li ci li ci ëppoon mooy campagne de commerçant maanaam traite gerte bi traite gerte bi tàmbali na xam nga prix plancher moom dañ ko def pour aar béykat bi mais kenn waxul ne foofu la war a yem

ñii bëgg a aussi ñu mën a exporter. waaw xam ngeen ni reel jafe-jafe dafa am ci engrais jafe-jafe boobu nag du Sénégal rek ci àdduna bi yëpp la am maanaam boo xoolee prix urée liñ ko doon jënd mois de juin daaw ak tey heure bi bu ñu nekkee dafa doublé xam nga nag bu doublé non seulement day métti ci état bi mais day métti aussi ci béykat bi loolu moo tax ñu ngi xool man ak sama naataango ministre des finance ak ICS ak ñi nga xam ne ñoom ñooy fournir engrais bi nan la ñuy def ba nawet bii di ñëw en tout cas Sénégal mu mun a am engrais boo xam ne dina teel egg ci baykat bi te ci ci ci ci njëg bu ci njëg boo xam ne moom moom war nañ ko mun a mun a mun a attan ci loolu la nekk te gëm nañ li fii ba weer bu maanaam mars war nañu mun a pare loolu pour que ñu pare nawet bi ñu bañ a am problème yi ñu amoon daaw par rapport à alcool. le soxal mbayum dër mi horticulture bi ren rendement yi wàññeeku na ndax ngeen nar a def pour gën a éviter loolu surtout baykat aussi lu ñu bay non mbayum der gis ngeen ne production bi moom macha dafa yokk te mu ngi yokk rek heure bi li ñu wax mooy dañu bëgg engrais bi mu ñëw démb waxtaan na euh, euh, ñaari euh, maanaam bés ci ginnaaw daj naa ak ñoom ñëpp ñi jóge valee ak fii ci ñaayi waxtaan nañu ba xool nañu trouvé nañu solution pour que ñu mun a am engrais rapidement pour seen rendement bañ a wàcc